Euh, section de gendarmerie am na ñuy wax leneen donc xamuñu exactement mais l' essentiel mooy sénégalais yëpp nañu yëg ni ñëw nañu fekk Ousmane Sonko fii arrêté ko yóbbu nañ ko waaw oh, xaw ma heure bi exactement man je viens d' arriver waaw yàggul dara parce que defoon na ci post Facebook am li mu wax léegi gis nañ ni véritablement euh, euh, gendarme yi jël nañ ko yóbbu nañ ko sénégalais yëpp nañ ko yëg. ana avocat mi ana avocat mi. ah avocat yi ils vont waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. seen leader di Ousmane wax ne teg nañ ko loxo yéen déjà xibaar bi lan ngeen ci am est-ce que jot ngeen koo ak lan lañ leen wax exactement fi waaw xibaar bi ñun ñëpp ñoo ko déggandoo. li li président bind ci page Facebook am lu leer la nee na dafa am benn renseignement benn renseignement bu ko doon filmer yow dem le saa demal bàyyi ñu ñun di wax yaa ngi dégg ki ko doon filmer moom la président nangu téléphone am bi mu ko nangoo parce que dafa jàppoon nii daf koy espionné loolu président bind na ko bi mu ñëwee GIGN ñëw fi jël ko yóbbu lii lañ ci am léegi nag li may wax sénégalais yi mooy Ousmane Sonko mu ngi ci loxo takk der yi loolu mooy information bi leneen li nag ñu bàyyi waaw loolu mooy information bi Sonko leaderu Pastef mu ngi ci loxo tekk dar yi yaa ngi dégg ni ñu ko jëlee nag président wax na ko ci page Facebook am loolu ñun ñëpp dégg nañ ko. non non njortuñu dara ñun niñ ko déggee rek noonu la ko ñëpp déggee mooy gis nañ ni ñëw nañ fi euh, mu julli ji jumaa ba pare ànd ak ay nit nit di ko filmer mu xam ni kii daf koy espionner mu ñëw nangu téléphone bi ci moom mu ñëw nangu téléphone bi ci moom ñu toog tuuti. ay takk der wàcc fi jël ko yóbbu ko lii mooy information non avocat yi man aw ma ci aw ma ci ñoom benn information waaw waaw ah, moom suñ kanam la nekk en mu ngi noonu. loolu caméra de surveillance voilà ok voilà mu ngi noonu caméra bi euh, dañ ko dañ ko takk juste rek pour bañ a xam euh, ñi nga xam ne ñoo duggu ci biir kër Ousmane son yaa ngi gis noon sécurité bi euh, mu ngi noonu di wane li nga xam ne moo di image donc mu doon mbir mu daal bu bu donc ni ñi nag ñu ngi wëy mbir yi gars également ñu ngi continuer di di ñëw yegg si sëñ bi yegg si daal di ko jëlee également ñu ngi leen nuyu. waa ñu leen di fay. Ah, yow bu jëf ji di am fii la la fekk wala. non comme ñi ko Sénégalais yëg rek laa ko yëg je travaille aux alentours mais léegi laa ko yëg via post Facebook yi. donc je me na ci wàllum ñun ñu fi liggéey xamoon nañ na Sénégal yëpp xamoon nañ ko mais on s'attendait pas à euh, donc arrestation bi comme ni ngeen ko yëgee ñun lañ ko yëgee te xamuñ fan lañ ko acheminé également waaw. non taxawaay bi ñu war a def moom taxawaay boo xam ne parti organisé la parce que parti organisé la donc je crois que dans les instances des heures à venir des décisions vont être prises et que yéen journalistes yi di jot incha allahu rabi waaw. jërëjëf euh, nga kàddu yi nga xam ne yëkkati yëkkati yëkkati na ko fii ci fi nga xam ne moo di kër euh, Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoo di ay garde corps am nag ñu ngi noonu waaye li ñu xamal mooy euh, caméra bi dañu ko dal di muur ah. dañ ko dal di mu ngi noonu sax image yaakaar naa gis ngeen ko actuellement nag nag xibaar yi nga xam ne euh, jot nañu ko euh, li ci gën a fës mooy jot nañ xibaar que ne mu nga tribunal jot nañ xibaar également que ne euh, mu nga section bu recherche bu diwaanu Colobane mais li ci am des mooy dinañ woy di def les recoupements pour savoir exactement fan la fan la nekk.

di ci euh, kër fii ci cité kër góor gi actuellement nag euh, ñi nga xam ne rek ñoo di garde corps yi ñu ngi noonee euh, di joxe des explications ak yu ni daal mbiri daal mu ngi mu ngi noonu ñoo ko déggandoo ci xibaar nga xam ne ñu ngi koy jot si suñu ay nattango daal xibaar yi ñu ngi naan ñu mi nga fële ca diwaanu fi nga xam ne moo di tribunal ñii ne également mu ngi ca diwaanu section bu recherche également on y on y reviendra plus largement mais sachez actuellement que vous ne moo di ci euh, xibaar yi donc pour l' instant loolu loolu la ñu mën a euh, jàppandi exactement on sait pas les les les raisons on sait pas exactement les raisons euh, de l' arrestation mais en tout cas léegi daal li ñu xam rek mooy Ousmane Sonko teg nañu ko loxo ndax ndaw ñi dañu woy di xaar ndax ndaw ñi également dañuy woy également di daal di defati li nga xam ne rek moo di. Euh, ndax ndaw ñi également dañu woy toog xaar noonu donc loolu it nekk na mbir moo xam ne it on y on y reviendra plus largement mais daal l' information mu ngi noonu euh, Ousmane Sonko sax moo ko xamle parce que moom neena euh, dafa demoon julli ji juma ginnaaw nag bi mu dal di retourné si la gis exactement que daal moom Ousmane Sonko moomee teg nañu ko loxo tout à bi ñu yegg euh, gis nañu ne Abass Fall moom yegg na moom député la euh, ci li nga xam ne moo di yeewee askan yi moom yegg si na bi ñu yegg si rek tout à l'heure Abass euh, nga xam ne moo di ci biir waaye quant à peut-être ko joxe garde corps rek ñoom ñoo mën a ñëwaat ci mi naka la demee chaîne beeg yooyu mais bu dul daal amul dara loo xam ne rek mën nañu ko wax bu dul loolu budut loolu it am na leneen loo xam ne mën nañu ko noté parce que tout à ñu ñëw fii ci cité Keur Euh, on que fi xam ne rek moo di foofee on que ci li nga xam ne moo di rond point ba cité Kagou gi ak les autres rond point euh, foofu gis nañ na takk der di jongoru gis naa sax ab euh, li xam ne rek moo di seen xeetu technologie yooyu di li nga xam ne rek moo di li ni mel gis naa ñu yor kook yooyu noonu wane tout simplement que daal ñoom wala dañu ko daal di préparé woon lii nag peut être xam naa surprise lay doon parce que ce matin sax ñu ngi doon Euh, li nga xam ne rek euh, moo di am na ñoo xam ne jog nañu pour dox ci après conciliation am na sax ñu yëkkati woon kàddu comme quoi que euh, ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko jot na jokkoo ak le président. de la République loolu également di euh, wàllum bokkam ci yooyu la élection ñu bëri sax jàpp nañ ne loolu mooy doon li nga xam ne rek moo moo gën daal euh, en tout cas mu ngi mu ngi noonu xam naa rek ñu woy di woy également di leen di euh, tegtal li nga xam ne rek moo di xibaar yi nga xam ne am na fii ci kër Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamee rek les les éléments de la GIGN ñoom ñoo fi ñëw ak seen i ay oto yu bëri selon un témoin boo xam ne moom yegsi na xamal nañu ne daal ñoom ñooñee Euh, daal ay oto yu bëri la indi ginnaaw gi it la ñu daal di jaare wuñ ci porte bi waaye dañoo daal di sauté euh, caméra bee sax gis nañ ñu takk kook yooyu muy wane nag ne tout simplement que ne ab diira ngi nii euh, ñi nga xam ne rek ñoo di takk deri wala sax am na ñoo xam ne rek ay renseignement la woon ñu ngi fii nii ci soriwul dara kër Ousmane Sonko doon peut-être taataan li nga xam ne rek moo di ay xibaar ak yooyu ci li nga xam ne sax Ousmane Sonko bind na ko ci ab texte am lenn kese la mooy gis nañ ne ñi nga xam ne rek moo di Ousmane ginnaaw bu mu jullijee li nga xam ne rek moo di juma bay dellu si ak téléphone boobee mu waxoon ne ay nitam euh, këf nañu koog yooyee euh, si la takk der yi daal di def foncé jël li nga xam ne rek moo di Ousmane euh, yóbbu ko donc pour l'instant mu ngi noonu on continuera de suivre cette évolution ci par rapport ak boobule actualité lépp loo xam ne it am na ci lu bees incha allah dinañu wéy di leen ko dégtal fii ci Feeling Dakar TV la chaîne leader ànd ci également ak ses collaborateurs yi nga xam ne rek ñoom lay daal di àndal peut-être maa ko loole dañu nelawal ñi nga xam ne ñoo di euh, waa ñu ànd ak euh, njiitu Pastef mais daal li am ba am mooy Ousmane Sonko yóbbu nañu ko fan la nekk exactement pour l'instant on sait pas on sait pas ses avocats également viennent juste de notifier euh, que ne ces arrestations ñoom dañu koy confirmer que ne loolee lu am la donc nu sommes la avec peut-être quelques patriotes sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi dellu ziar bu baax fan nga bàyyee ko yow. maa ngi bàyyee ko Fass. Ah, Fass Paye. bi nga déggee nouvelle bi lan nga yëg. waaw dama dama bi ma déggee nouvelle bi li ma mën a mooy daanaka dama ne réew mi. Euh, ñu ngi fi doon instauré jàmm fan yi yëpp mais dama jàpp ne réew mi gars yi bëgguñ fi jàmm ndax euh, ku mel ni président Ousmane Sonko ak dayo bi mu am ci réew mi nga jël ko yóbbu mooy réew mi bëgguñ fi jàmm ñun nag euh, jàmm la ñuy woote à chaque fois te moom aussi ci moom lañ koy royee si jàmm jooju muy woote moo tax li ñu buñ li ñu sañ bëgg ko mooy nañ ñu wax ci anam yan lañ yóbbu président Ousmane Sonko ak lañ ñu wax cause bi lan moo ko waral ak li ñu bëgg mooy ñu delloo si ko immédiatement nu mu gën a gaawee loolu lañ bëgg parce que jàmm lañ bëgg ci réew mi parce que Ousmane Sonko téye ko jàmm am ci réew mi loolu mun a nekk ku tëgg sa kër yaakaar ni mën nañoo téye président Ousmane Sonko jàmm nekk parce que président Ousmane Sonko defut ci réew mi lu tax ñu koy yóbbu di ko téye te ñi def ci réew mi à chaque fois ñu gis leen mooy li nga tax ndaw yi di mbëkk gaal gi di dem dee ci géej gi yooyu ñooñu lañu waroon a jël tey jàpp leen téye leen mais defuñu loolu jël bi nga xam ne dafa set yàlla setal ko ñu bëgg koo jël di ko këll-këlee loolu ñun Sénégalais yi duñ ko nangu surtout les patriotes du Sénégal duñ ko nangu.